bisimilah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
La ilaha illallah, la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, ala nabiyika wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu alayhi wa sallam, nabiyyina wa rasul.
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko sunu xutba tey mooy ayna qulubuna min xutbati ljumaa sunu xutba tey mooy sunu xol yi fan la toll ci xutba jumaa ajjuma bu nekk ñu bari ci ñun danañ def sunnaay juma danañ sangu danañu solu danañu gëttu mooy xeeñ parfum gàddu suñu sijaada dem juma ca njëlbeenu waxtu wa ñëw julli suñu ñaari rakka toog jàng alquran wala def suñu azkar ba xutba bi jot après ñu déglu xutba dem jeex na ayna qulubuna min xutbatil jumaa dëgg-dëgg mbokk julit yi su fekkoon ne xutba jumaa yi ci àddina bi jullit ñaa ngi koy dégg kon jullit ñi du ñu mel tey nii nu mel semaine bu nekk na jullit bi xool ñaata vendredi moo ci nekk vendredi yooyu yëpp dem nga jumaa vendredi yooyu yëpp déglu nga xutba waaye loo ci jële sunu yonent alayhi salaatu wassalaam day wax ci njëlbeenu xutba mooy xutbatul xaaja am na xutba boo xam ne sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy xutbaam moom la ñuy wax xutbatul xaaja yonent bi xutba boobu lay ubbee lépp lu muy def buy xutba juma buy takk sëy mboolem ay duggam ak ay génnam lu muy wax wala lu muy def day jiital xutba boobu ba pare muy inna alhamdulillah ñun ñëpp nañ xool ànd déglu baat yi nga xam ne mooy inna alhamdalillah mu ne kalimatun laha qissa ay baat la yoo xam ne dafa am histoire dafa am historique te histoire boobu wa fil qissa ibra histoire boobu dafa am ay kéemtaan yu ci nekk ay jàjj yu ci nekk yoo xam ne ña ko doon dégg am na lu mu def ci ñoom al imam muslim rahimahullah mu ngi nettali ci téeréem boobu tudd saxiix hadis boo xamante ne ibnu abbas lañ ko jële radiyallahu anhuma mu ne anna dama anna dimaadan radiyallahu anhu qadima makka قبل إسلامه وكان يرقي فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون دماغ كان ci saxaaba yi la balaa muy dugg ci lislaam dafa ñëw Makka bi mu ñëwee moom la doon liggéeyam mooy mocc boo amee ku jinne jàpp wala kuy daanu ay rab comme ni ngeen ko xamee dimaat loolu lay liggéey mu dégg bi mu ñëwee màkka mu dégg magi màkka dofi màkka naan muhammad day ab dof la jinne ko jàpp seytaane ko dugg dafa dof dafa tàqali ko ak xelam lan moo tax parce que gis nañ Muhammad li muy wax ak ñoom la ñuy dund ça fait deux la mu leen di tere ak la mu leen di gëmloo bokkul ñu ne kii xale bi melul woon nii bu ñu toogee léegi ba gis ci moom melokaan bi xale bi ay raba ko jàpp wala ay jinne ko dugg ah comme moom dégg na loolu moom dimaad radiyallahu anhu wa arda dégg na magi màkka naan Muhammad dafa dof فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي ah man de xale bi may dégg ci biir màkk ñépp ànd naan dafa dof dafa dof amaana su ma ko gisoon wér gu yaramam xelam li koy delloo si amaana yàlla def ko ci sama loxo comme man mën naa métier boobu maîtriser naa ko ndeysaan moom dimaab benn bis rek mu daal di dajeeg yonti yàlla muhammad mu ne ko yaa muhammad inni urqi man dey moccukat la amaana wa inna allaha yasfi ala yadi man yasha léeg-léeg ci coobare yàlla yàlla dina faj ay nit ci sama loxo léeg-léeg ay nit danañ feebar ñu indil ma leen ma moccu leen ba ci kattanu yàlla ñu wér ci sama loxo waaw yow Muhammad tee ngaa ñëw ma mocc la ndax jinne yi dugg la amaana ñu bàyyi la yonent bi ne ko déglu ma mu ne waaw waxal yonent bi ne ko inna alhamda lillah nahmaduhu wa nastainuhu من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد limaat ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko baamtuwaatal kàddu yi ma dégg ko yonte bi baamtuwaat kàddu yi inna alhamdalillah nahmaduhu wa nastainuhu wa nastahdi wa nauzu billahi min sururi anfusina ba yegg fi mu ko yeggalaat mu ne ko baamtuwaatal kàddu yi yonent bi baamtuwaat ba mu nekk ñetti yoon ba salaasa marraat fa qaala dimaad بعد ذلك لقد سمعت قول الكهنة وقول السهرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلمات هؤلاء waaw yow yonent bi yow mii yow Muhammad man man dimaab de déglu naa waxu njabarkat yi xam naa njabarkat yi li ñuy wax lan la seen mocc yooyu ñuy mocc ay jiifi jaafa jafta jaf yankar ja marja yooyu ñuy wax yooyu dégg naa ko ba xam ko xam naa ko waaye wa qawlu suara xam naa waxu waykat yi wa qawlul kahana xam naa waxu buxaaba yi waaye baat yi nga wax fii léegi léegi inna alhamdulillah baat yi de musuma koo dégg lu dul tey kon nag yow mii waa Màkka dañ doon wax ne da ngaa feebar waaye ñoom ñoo feebar tàllalal say loxo ma jaayanteeg yow dugg ci lislaam tey ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dimaat daa ñëwoon faj yonente bi yonente bi faj ko waaye mbokk yi xam ngeen lan mooy lan mooy mbir mi lan moo ci jaaxle mooy dimaat léegi la dégg wax yii inna alhamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا léegi la ko dégg tuub ñun ñett ñaata at ñu koy dégg ñi julli si ñëpp laa koy laaj ci kaw ak ci suuf ci biir ak ci biti góor ak jigéen mag ak ndaw munzu mata nasma'u hadhihi al-kalimat maaza maaza istafatna minha ban ko commencé dégg ba léegi ñun ñëpp kii xutbaak ñi muy xutba kii wax ak ñi koy dégg góor ak jigéen lan lañ ci jële lan xoola kee dafa dégg baat yi ay minutes yu ndaw mu ne xam naa ne lii du waxu buxaaba lii du waxu njabarkat lii du waxu woykat haati yadaka ubayiuka ya rasulallah indi sa loxo ma jaayante ak yow fa baayahu rasul sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jaayanteeg moom bi yonent bi jaayanteeg moom ba pare lan la ko wax ala qawmika say nit yow di maad say nit fa qaala wa ala qawmi ak samay nit xam xam nga démb ku dugg ci lislaam kuy góorgóorlu di topp yàlla ak yonent di dund kitaab ak sunna ñooñu dañoo yëgoon ne ñoom ay soldaaru yàlla lan ay wootekatu yàlla lan mbir mi duñ ko yemale ci seen bopp rek waaye balligu anni walaw aaya jottali leen ñeneen ñun tey dañuy dëgg rek teg ci suñ tànk kenn ci ñun sax du ko ñeppi wax ko kenn loolu mooy wax ci xoolal léegi la dugg ci lislaam dimanche bi léegi yonent bi ne ko ala qawmika ak say nit mu ne yonent bi ak samay nit innaha kalimaat yasiraat ay baat yu yomb la inna alhamdalillah cant yàllaa ko moom noo ngi koy sant moom yàlla moomu di sàkku ci moom njub di muslu yàlla ci saytaan ci sunuy ay bopp ak suñuy jëf yu bon ku yàlla jubal kookoy ki jub ki yàlla sànq kenn mënatul fexe ba mu tegu ci yoon bi lii la dimaat dégg ay baat la yu néew yu yomb fii majlisin waahid ci benn barab ci benn place waaye taassara biha mbir yi dugg na ci xolam mbir yi changé na dundam mbir yi wëlbati na ko mbir bi indil na ko ay orientation yu bees sàq yoo xam ne fa la teg tànkam fa la ko war a teg naqalathu min lujjati lkufru ila lazzati tawxid baat yi la dégg léegi léegi ci ay seconde yu ndaw ay minute baat yi génne ko ci géeju kuuf kéeféer baat yi baat yi génne ko ci ay teeni kéeféer xóotaayu kéeféer baat yi dugal léegi léegi léegi léegi léegi ci xol bi pas-pasu tawxid kennal yàlla ñun depuis ñaataat ñu ngi dégg baat yi ba léegi ci ñun ñu ngi bokkaale ñee ngi takk ay lam ñee ngi takk ay ndombo ñee ngi takk ay téere ñee ngi takk ay galaaj ñee ngi ñaan naan bu neexee yàlla ak ñenn ñi sax duñu wax bu neexee yàlla dañ naan bu neexee diw rek wala su ko ne ci noo def mu ne sant diw na nga def sant diw allahu akbar dimaat léegi-léegi la dégg baat yi baat yi génne ko ci géeju kéeféer yóbbu ko ci tawxid wa axrajathu min azulumat aljahliya ila nuuri lislam baat yi génne ko léegi ci ceddo yóbbu ko léegi ci lislaam ñun ñaata at ñuy dégg baat yi inna alhamdalillah ñaata yoon baat yooyu yemul génn dimanche rek waaye bal axrajathu wa axrajat qawmahu wa maahu baat yi génn na ko moom dimanche ci kéeféer ci bokkaale ci bidaa baat yi yo ak ay mbokkam moom yemale wa ko ci boppam waaye ba mu demee dëkk ba baat yooyu la fa yóbbu baat yooyu ña ko dégg génn topp dimaat allahu akbar ñun lu tax baat yi mënu ñoo soppi li tax baat yi mënu ñoo changé kalimatun la taalama ruddidat ala al manabir baat yi chaque jour ñu baamtu ko ci minbar yi chaque jour ñu baamtu ko ci xutba yi chaque jour ñu wax ko ci conférence yi chaque jour ñun ñëpp ñu koy wax ñëpp léegi mën nañ ko waaye lan la changé ci suñu dund lan la changé ci suñuy dundi mbokk la taalama takarrarat fi ljum'a ala masami'ina fa ayna atharuha wa atharu ma ba'daha ay baat la yoo xam ne ajjuma bu nekk imaam yi taxaw fii danañ ko wax waaye baat yooyu mu ngi dugg ci sunuy nopp di wàcc ci sunuy xol waaye lan la jeexital mbokk yi ci ñun ñi koy dégg ak ñi koy wax ak ña koy jottali lan la jeexital ci ñun ixwatal iman dimaata ngi nii baat yee ko soppi te yàlla baaxe nanu ibadallah laqad manna allahu alayna bi yawmin huwa xayru alayaam qala nabiyukum muhammadun sallallahu alayhi wa sallam xayru yawmin talaat alayhi shams yawmul jumaa rawahu muslim jullit ñi tey xéewal bi leen yàlla defal yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxal leen xéewal googu nettali leen ko yonent bi nee na yéen jullit ñi yàlla baaxee na leen bis boo xam ne bés bu nekk jant dana ci xëy moo gën bés bu nekk jant da ci xëy di fenk bis boobu moo gën bis yëpp bépp bis boo xam ne jant dana ci xëy fenk bis bii yàlla baaxe leen yéen jullit yi bis bii moo gën ci bis yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na mooy bisu ajjuma mu nekk bis boo xam ne jullit ñi saa yuñ ci teewee danañ fa dégg xutba boo xam ne war naa soppi seen dund war nañ faa jële information boo xam ne war na leen wax fu ñuy teg seen tànk xutba yooyu war na changer jikko yi war na defaraat pas-pas yi war na leen yokku xam-xam parce que tey li tax xutba jumaa doy waar mooy jullit ñi jàngatuñu ci jumaa yi la ñuy jëlee xam-xam jullit ñi jàngatuñ suñu suñu yëngatu ya mooy nan la ñuy def ba suñu dund àdduna jag am maa xam-xamu diine fële lañ ko teg léegi nag àjjuma la ñuy dem war a dégg liñ war a dégg foofu tamit waaw bëri na ngay wax ak kenn sax jumaa mu ne la nopp bu bon bi laa la jox dégg nga li ma wax mu ne déedéet nopp bu bon bi laa la joxoon wala dugg na fii génn na fii jeex na takk loolu rek la ñuy jëlee léegi ci xutba yi waaw wala xutba bi doy na waar tey jeex na waaye ñun ñëpp suñu delloo ci kër ya xutba yi du ñu changé te yonent bi alayhi salaatu salaam ci xutba yi la changé sahaaba yi ci jàngaleem ci jàkka ji la leen soppee fala sàngara araamee fala def yaramu neen araamee fala fala lépp lu diine di araamal keroog ba mu wàccee ci yonent bi ci jàkka ji la ko yonent bi jottalee sahaaba yi tey nun góor ak jigéen mag ak ndaw du ñu jëlee ci julli ji jumaa lu dul jël sunu sijaada lal julli ñaar rakka yi dem suñu yoon mbiri du taasir ci ñun dara li tax xutba jumaa doy waar bañ ne imaam buy wax ku kenn nekk ci wetam wala kenn nekk ci jumaa ji di wax ku ko ne déglul sax yow amoo julli lu tax importance bi moo tax yonent bi nee na ci jumaa su fekkee imaam a ngi wax am keneen kuy wax feneen ci ginnaaw sàppe bi wala keneen ne ko yee yow déglul kooku ne ko yee yow déglul amul jumaa lu tax ndax xutba bi nu mu amee solo pour nit ñi déglu ko pour nit ñi dégg ko waaye pour bu nu delloo jëfe ko ibadallah laqad adahat xutbatu aljumaa wa lilasaf hiya alfursa alwahida likathirin min almuslimina fi istimaai alilmi tey xutba jumaa occasion la ci jullit yu bare bari moom moo fi des ci occasion yoo xam ne jullit ñi far la ñu war a jële fu ñuy teg seen tànk tey ci dëkk bi nga xam ne pas-pas yépp a yàqu tey bokk na ci li ñu ma yónnee sama vidéo benn waay boo xam ne ab jullit la dëkk ci Sénégal gii di naan sàngara loolu sax ku koy wax léegi da nga koy sàppi mun mën nga mun na naan sàngaraam waaye nan la ko naanee taabal bi mu teg pour teg ci butéelu sàngara bi lan mooy taabal ji mooy ñaari kaamilu alquran ci la teg butéelu sàngara bi di naan sàngara ñaari kaamilu alquran la waa ji teg teg ci butéelu sàngara bi di naan léttu boppam takk croix ànd ak ay xale yu jigéen yu muuru yére bi mu sol mu ngi ci dessiné photo sëriñam loolu mooy sunu problème tey mooy ñun ñëpp dañu ñëw julli dégg li yàlla wax ak yonent ñu teg ci suñ tànk lépp ñu dégg ko dégg nañ lépp li yàlla bëgg ñoo ko gën a xam ñoo gën a xam li yàlla tere leer na nañ waaye mal asaf yëf yi du jeexital dañuy dégg rek dem ñibbi te occasion la bu rëy pour lan jullit bi jëlee ci xam-xam keroog ba ñu bàyyee sunu diine keroog ba ñu bàyyee jàng diine loolu mooy musiba bu ñu njëkk a dal mooy léegi dem nañ ba xutba jumaa amatul ci ñun benn importance am na ci ñoo xam ne sax ci ñun dañuy toog di déglu loin nekk ci seeni place seeni place de loin ba ñu ne bismillah ñu doog a ñëw julli ci ñun ñu bëri xoolal li yonent bi doon wax ci teel a dem julli ji juma ki génn première heure lan la yonent bi wax ban tiyaaba la am yonent bi tàmbalee ko ci gëléem di wàcc di wàcc di wàcc di wàcc ba ci ginaar mu wàcc ba ci nen nen ki mujjee ñëw dernière mu ne ko nen nga am nen lu tax pour xutba bi la mbokk jullit yi yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na nu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillahi waxda wala nacbudu gayra muxlisina lahu ddin ولو كره الكافرون عباد الله ما يزيد على خمسين خطبة في العام تتلقاها القلوب كل أسبوع أيام أين أثرها على قلوبنا أين أثرها على سلوكنا وأخلاقنا عباداتنا أين أثرها على علاقتنا بربنا ووالدينا وإخواننا وجيراننا mbokk jullit yi lu tolloog juróom fukki xutba ci at bii wala ci at mi ñu génn ñun ñëpp dund nañ ko ci jumaa ji lu tolloog juróom fukki xutba dund nañ ko ci jumaa ji ñun ñëpp semaine bu nekk danañ jël benn xutba waaye xutba yooyu ay na asaruha ana jeexi talam ci sunuy xol fan la xol yi toll ak xutba yooyu ñu doon dégg ay na asaruha ala sulukina xutba yooyu fan la toll ci sunuy jikko sunuy jikko sunu melokaan sunu jaamu yàlla xutba yooyu fan la toll ci sunuy relation ñun ak sunuy soxna ñun ak sunuy doom ñun ak sunuy baay ñun ak sunuy mbokk ñun ak sunuy dëkkandoo lan la ñu gis tey jóge juma attaqué sa dëkkandoo histoire jóge juma attaqué sa mbokk jóge juma attaqué sa baay jóge juma attaqué sa jabar jóge juma attaqué sa jëkkër jóge juma ana xutba yi ban njëriñ la am ban ban relation la am ci dund gi ñuy dund te xutba yi lii rek lay wax suñ digganteeg suñu boroom suñ digganteeg suñu yonent suñ digganteeg alquran suñ digganteeg sunna suñ digganteeg tawxid suñ digganteeg suñuy mbokk suñ digganteeg suñuy dëkkandoo suñ diggante ak suñuy bopp loolu rek la xutba yi di wax waaye ban jëriñ la am benn borom xam-xam bu mag dafa am bibliothèque saa yu xëyee day ñëw fomp téere yi jël téere yi commencé di lire lu tolloog juróom fukki at saa yu xëyee rek dana dem ci bibliothèque bi am na kenn kuñ naan ku xelam manqué ku feebar ku desadi noonu rek ñi manqué ñi feebar ñi di def fii suñu tàmmee nga leen di jox dara ci sa place saa yu xëyee dañuy ñëw su benn dof miinee sa place saa yoo ko ubbee bu ñëwee nga nga jox nga jox ko ñaar fukk dof bi day tàmm place bi kooku tamit noonu la saa yu xëyee rek day ñëw góor gi jox ko ñaar fukk mu dem saa yu xëyee rek góor gi jox ko ñaar fukk mu dem benn bis mu ñëw ne góor gi yow ñaataat nga nekk ci bibliothèque bi góor gi na ko ah yàgg na de est-ce que matul juróom fukki at mu ne ko suba boobu xëyee rek gis naa la boo ñëwee di nga ubbi téere yi rek di jàng yow yow yow sonn nga de góor gi ne ko ah yow da ngaa xam li ci téere yi mu ne man lii naan naa ko bu yàgg paa bi ne ko allahu akbar ah yow xam nga lu nekk téere yi mu ne waaw loolu gi ne ko téere yi lu ñuy wax mu ne kun jëy it baaxal téere yi nee na nga baax kese baaxal nga def sa yoon nga tëj fii nga dem munoo baax allahu akbar wallahi wax na dëgg xutba yi lan la ñuy wax baax leen rek est-ce que baax na loolu la daf wax góor gi ne ko téere yi nee nañ nga baax est-ce que téere yi waxuñu loolu loolu kese la téere yi di jàngale alxuraan li muy rëy rëy lépp 114 saar lan lay wax baax leen kese sunna buxaari muslim abu daawuda tirmisi nisa ibnu maaja kutubu sitta yëpp lu ñuy wax baax leen kese di ngeen baax xoolal baat bu ndaw dof bi keroog moo ko wax góor gi paa bi toog bind ci téere kun jëyit baaxal loolu la ñu xutba yi di wax waaye fan lañ toll ci loolu baax leen fan lañ ci toll tey est-ce que baax na naka nit di baaxee xamul boroomam naka nit di baaxee xamul yonentam naka nit di baaxee xamul alquran naka nit di baax xamul sunna naka nit di baaxee amul tawxid xamul yàlla xamul yonent ñu ne kooku baax la ku mun a maye xaalis ngeen xam ku mun a joxe lekk ngeen xam ku mun a waaye ku xamul yàlla kooku baaxoo ku xamul yonent kooku baaxul ak ku ko nekk ku baax la ixwatal iman nasalukum billah asaluka billah ayuha almubarak kam xutbatin xadarta yéen ñu baax ñu julli si tey yéen ñu set ñu julli si tey ñu laab maa ngi leen di laaj ñaata xutba ngeen mës a teew yabnul ishirin yéen ñi ci am ñaar fukki at ñaata xutba ngeen mës a teew yéen ñi am ñeen fukki at ñaata xutba ngeen mës a teew yéen ñi am ñeen juróom fukki at ñaata yéen ñi am juróom fukki at yéen ñi am juróom fukk juróom-ñett fukk ñaata xutba ngeen mës a teew xutba yooyu lu ngeen ci jële xutba yooyu lan ngeen ci jële ku nekk laaj ko sa bopp bi ma tàllee dulli jumaa ba léegi am naa juróom fukki at lan laa jële ci xutba yi jumaat jumaat tamurru alayna marrul kiram duuna an nairaha adna ihtimam jumaa yaa ngi romb ay ajjuma ajjuma ajjuma yu kenn mënta lim waaye kenn du ci bàyyi yitte xoolal yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu mu wax nee na bisu ajjuma njanaaw yeeg picc yeeg rabu àll yi lépp lu dul doomu aadama vendredi bu dee xaj dañuy triste duñu lekk duñu naan dañuy sëngamtal rab yëpp ajjuma dañuy sëngamtalu lu tax dañ naan tey la yowmal xiyaam ndax yàlla nee na ajjuma bisu yowmal xiyaam la bu ñu toogee ba mu naaj ñu fireeku tuuti ñu ne ah heure bi de passé na fii bu ñu toogee ba ñu julli ba pare ñu ne ah xëy na heure bi bu ñu toogee ba tàkkusaan passé ci la rab yëpp di fireeku nag xam ne du ajjuma bii ñu ne ajjuma lu ñuy préparé weekend takk oto yi sali somon hôtel jahannama ah anawa ñun àjjuma la ñuy préparé loolu àjjuma boobu ñuy waaj di def ay musiba ndeke yowmal xiyaam ci lay nekk yonent bi loolu la wax fiihi taqumu saa ci la yowmal xiyaam di am mu ne ci la ñuy dekk boroom xam-xam yi ne ban heure la ñu ne tàkkusaan moo tax yàlla di giñ ci wal asr li tax yàlla di giñ ci wal asr nee nañ tàkkusaan googu mooy yowmal xiyaam bokk jullit yi ndeke julli ji jumaa du dem rek joxe ñaar rakka yi dem déedéet duruus yu ñuy jële ay njàng yu ñuy jële ci xutba yi ay xam-xam yuñ ciy jële pour mën a dëgëral suñu pas-pas suñu digganteeg suñu borom pour nu xam fu nuy teg suñu tànk xam nan la ñuy dundee léeg-léeg nga ñëw ci xutba ñu wax la nooy nekkeeg sa baay léeg-léeg ñu wax la nooy nekkeeg sa doom léeg-léeg ñu wax la nooy nekkeeg sa soxna léeg-léeg ñu wax la nooy nekkeeg dëkkandoo yi léeg-léeg ñu wax la yaag sa boroom yaag sa yonent yaag alquran yaag sunna loolu la nga xam fi ngay teg sa tànk nga xam li nga war a def lan mooy say àq nga dund ko waaye bu fekkee nii rek la julli ñëw asalaam allahu akbar asalaamualeykum dem danañ toog juróom-ñaar fukki at waaye duñu nuroog dimaad dimaat ñaari baat la dégg baat yooyu ñoo changé dundam baat yooyu ñoo ko génn ci bokkaale yóbbu ko ci kennal yàlla baat yooyu ñoo ko génn ci bidaa yóbbu ko ci sunna baat yooyu ñoo ko génn ci jikko ju ñaaw yóbbu ko ci jikko ju rafet baat yooyu ñoo ko génn mu génn nekk benn soldaaru yàlla bu dem changer société dafa génn dem ci ay mbokkam changer leen baat yooyu ñoo ko yëngal mu changer keroog ba Aboubacar duggee ci lislaam tàllal loxoom yonent bi ne ko tuddal baatu seede yi mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah rek aboubacar dafa changé baat yooyu démb ñi ko doon wax dañu koy wax rek soppeeku aboubacar ne yonent bi mbir mi ma ñëw tey lan moo ma war yonent bi ne ko li ma war moo la war mu ne ah bon mu ne waaw mu ne xaaral ma ñëw mu génn indil ko Ousmane ibnu Affan mu ne kii dafa bëgg a tuub premier jour deuxième jour mu indi bilal muazzinu rasul mu ne kii day tuub troisième jour mu indi ousmane ibnu maazun mu ne kii day tuub quatrième jour mu indi ousmane ibnu maazun mu ne kii day tuub cinquième jour mu indi arqam ibnu abil arqam mu ne kii day tuub ashara mubashirina bil janna aboubacar moo leen dugal ci lislaam ñun kan lañ dugal ci lislaam noonu ñun kan lañ dugal ku nekk ci fi nga toog laajal sa bopp man bi ma commencé dund sunna ba léegi kan laa indi ci diine bi yàlla nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla nu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko mbokk jullit yi mbokk yi ci yàlla waxtu yi nu toll di waxtaan ak yéen ci sunu daara ji ñuy jàngalee yàlla daf nu fa nattu daf nañ fa 19 ans daara ji nekk ñaari étape nekk jardin d'enfant ak école élémentaire am nañu ay ndongo alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax waaye daara ji dafa nekk ci état bu borom kër gi di jaay kër gi ñu waxtaan ak moom mu may ñu délai bu xaw a xëccu pour daara ji mën a des suñu loxo pour ndongo yi mën a continuer di jàng foofu ak seen yar ak seen formation lim ñu laaj nag mooy 20 millions la ñu laaj amuñu ko mais yàlla am na ko ñu defar ay carte soutien yoo xam ne dañ ko indi di ko tas ci jumaa yi ak ci mbokk jullit yi am na carte bu 1000 am na carte bu 2000 am na bu 10 000 am na bu 5000 am na bu 1 million am na bu 500000 ku nekk foo ci toll loo ci bën carte yi indi nañ ko moom ci jumaa ji bu ñu paree julli kenn ku nekk ci yéen lum ñu ci mën a dimbalee incha allah tàllal na na loxo carte yaa ngi ci jumaa ji incha allah bismillah اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله